ndës maestro nini man bu seen xel teeyul man sama xel dafa tey depuis boobu ba léegi defoo benn signe de vie man xawma foo dëkk te sa téléphone danga ko fay damaa tiitoon man li ma dund fii musuma ko dund fenn foogoon naa ne heure bi leneen la ñuy wax pour man dee naa ba pare yéen sa yaay naka la mën a amee alal ci yëpp jël gardien bu xiif bi teg ko fi benn doole amu ko caméra de surveillance sax amu ko mais renforcer leen seen sécurité lii nan ngeen ko mënee. Kumba yow de xam nga ne lii ñu génn nii sama yaay lépp dina ko changé waat waxuma sama doom yii rek mais yow bu la fi dara jotoon man maay gàdd responsabilité bi loolu moo tax ma tiit woote nañu ba sonn duñ la jot mënuñu fexe ba jot la. ma ne Linguère na ñëw seen kër seet la s'il le faut que ñu ànd maak moom mu ne xamul seen kër loolu nan la mën a nekkee. sama alal ni lan la. ah ok kon yow léegi li nga bëggoon am nga ko. am nga léegi li nga bëggoon gàttal. am nga li nga bëggoon léegi am nga ko boo ko amee léegi baax na. ok ok. mère bi xaw wax na ma lépp léegi am nga li nga bëggoon lekk nga ko léegi lekk nga ko waxal lekk nga ko yow. yow daal yow la yow. Eh. yow kii kii yow. Eh. kii kii. Eh, damaa bëgg nga déglu ban déglu yow aw ma lu ma lay déglu. non dee moom bu taxawee dañu bàyyi lépp mu sedd quoi. cuut moo ah. yow dafa ne réew mi soxlawul ñu mel ni yow yow yaa bon sa ndey dafa naxaru ba dee. nga yëkkati alal sàcc alal ju bon di ko jox ma ko jox naan ma jox ma ko jox ko sa yaay ngeen ngir ngir mu waaye yow man dinaa ko jël